tax ba agent ak ñi nga xam ñooy état ñoom tamit ñu daal di mën a nekk waaye tamit mession la boo xam ne daal dafa daal delluwaat ci li nga xam ne daal mooy ndoonay Sénégal ba tax na li nga xam ne daal mooy wàllum politique national ñoom ñu koy définir waaye tamit am na jeexital gu baax boo xam ne administration bi di dépendre ci lëkkaloo bu lëkkaloo ci li nga xam ne mooy delluwaat ci facteur technique administratif ak nit ñi fay liggéey tàggat gi nag moom gis na ne lu am solo la bu fekkee ne dañoo am mission bu nga xam ne dañ koo nekk état tàggat gi ne moom ci wàllum xam-xam ak nit ki na lay nekkee ci wàllum éthique administrative ak ci wàllum koppar maanaam yaxanal gi Sénégal nag moom ci euh, première décennie nag moom gis ne ba mu amee indépendance ba léegi ma ngay former ay cadre ay agent ci euh, affaire publique ab lépp loo xam ne daal ci domaine la bu mu munti doon waaye yenn ci ay agent yi ñoom ci génération bi nga xam ne ponkal lañ ci ñooñee dem na ba daal di euh, suuxat état nekk ay kenoom ba tey lañ ci mën a jàpp ne administration publique bu Sénégal dafa delluwaat rek ci euh, reñ bi nga xam ne moo amaat ci ay serviteurs yu état ba tey dañoo nekk ay modèles yu nga respecté ñoo xam ne kat seen xam-xam foo ko nat weesu na ko ci wàllum loi ci wàllum justice ak tamit ni nga xam ne mooy moomeelu askan wi ndono loolu nag moom ñu war koo daal di téye fukki loxo waaye itam gis nañ ne ñu bëree bëri ña ngay def seen liggéey naam waaye gis nañ tamit ci ay inspecteurs généraux ci ay cadres ñoo xam ne ay liggéeykat lañu ñoom ñëpp daal seen loxoon ci biir waaye service public bi nag daanaka fan yi moom dafa mel ne luy faatu ndànk-ndànk ndax gis nañ ne sax day gën a rus lool ak lu mënti xew ñu bëree bëri ñu ngi koy ŋàññ ndax gis nañ ne nga nekk état ci nii mbaa ci ne lépp daal sa loxo day laal ci wàllum politique politique bi nag moom moo gën a yàq liggéey bi nga xam sax moo koy def ndax ba mu ci duggee kat lépp daal di këppu tey ji nag moom administration nekk na feebar bu nga xam ne daal saafara ko moom dina të askan wi loolu ndax gis nañ ne ñu bëree bëri ci service public maanaam la nga xam ne kat moom lañ ci wuti duñ ko ci gis jafe-jafe nag moom métti na wàllum yoon ak ci wàllum njàng meeg njàngalem ci wàllum wér-gu-yaram courant bi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ko ciy ngawti ñu gis tamit nag moom ñu bëree bëri mbii coombaal gi nag moom bari na ci lool am ñoo xam yaakaar ni kat ngir mën a jot la ngay seet fokk rek nga am koo xam boole keneen ndax ñu bëree bëri gis nañ ne xaalis moom bunt bu mu fëgg rek mu ubbeeku ñu bëree bëri nag moom yaakaar ko ci njiit li njiit mi moom mooy tabb ko ko neex waaye daal di yaa seppi ko ko neex administration kat ci jamono ji dafa dafa ñàkk mel ni ruwam ba tax na dafa mel ni daal dañ ko transformé ci li nga xam kat mooy intérêt bii nag moom nga xam ne mooy kat yor seenu cëggalu guy acteur politique yi ak société civile pouvoir ak ñi nga xam ne ñoom seen bopp ñoo fi nekk ku ci nekk daal sa loxoom ci biir ndax bu ñu deful nànk rek guut a gëñ nar a dugg nag moom kenn du ca génn